صفا لي وقتي والحبيب يخصص وإني محبوب لطه مخصص صفا لي وقتي والحبيب يخصص وإني محبوب لطه مخصص مراد لحمل السر من قبل نشأتي مرب لكل العارفين ومخلص وإن دهش الأقطاب يوما بمشهد رأوني وانقادوا إلي وأخلصوا رأيت رسول الله نصى بأنني سفير له في الكائنات مخلص رأيت رسول الله نصى بأنني سفير له في الكائنات مخلص عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب سموا وتخلصوا صفاني لي وقتي والحبيب يخصص وإني محبوب لطه مخصص بين صفا لي وقتي والحبيب يخصص وإني محبوب لطه مخصص وبين يس رضي الله عنه نينا صفا لي سلنا نيلما وقتي سما وقته سما وقت سلنا دخلا والحبيب ينتبي صلى الله عليه وسلم دي صوب بي يخصص مم جاك جاكليل لم كو جاكليل نك مم موكو خم موتا ar rasul sallallahu alayhi wa sallam yuxassisu man shaa bi ma shaa moom mooy jagleel ku ko neex lu ko neex te loolu xadis moo koy wéral yonent bi sallallahu alayhi wax na ne inna allaha huwa almuti wa ana alqasim yàlla moom mooy joxe man maay kii séddale waaye wax ji dafa làkk mbir yàlla mooy joxe maay kiy séddale maanaam yàlla mi doon joxe jox na ma man maay ki nga xamante ne moom maay séddale euh, sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi na su wax ne ne afaada ilayya minhu xaqan wa innahu afaada li gayri min fuyuudi hibaa'i yeneen bi man la may mayeg dëggantaan keneen ku dut man yëpp bu ñëwee ci moom danaan ko demal ci ibrahima mu ne wa inniya naka man mi ibrahima ñas mu mahbubun ku ñu bëgg laa mahbubun ku ñu bëgg laa kan moo ko bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne mahbubun li taaha ñeel yenent bi muxassasu ki nga xamante ne tamit dañ kaa jagleel yenent bi sallallahu alayhi wa sallam laa nadira lahu amul dendandoo amul màppandoo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Baay Ñas ne muraadun li xamli sirri man maay ki nga xam ne man la yàlla namoon li xamli sirri pour ma yenu mbootag Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour ma yenu tamit mbootam cheikhu tijaani radiallahu anhu dina ko wax ci biir bayt yi mu ne min qabli nachati loolu nag moo jiitu sama nekk ba yàlla décidé loolu boobu man moo jiitu sama nekk moo tax maratibul wilaya ñett la am na wali yu boo xamante ni moom xam na boppam nit ñi xam nañ ko yàlla xam na ko kii moo gën a tuuti wilayatu am koo xamante ni moom xam na boppam yàlla xam na ko waaye ñi ñi dañ kaa réere kooku mooy ki digg doomu dina am wali yi nag boo xam ne yàlla rek xam wilaayatoom fu mu toll waaye moom xamul boppam ñi ah, ñi tamit xamuñ ko boo xoolee Baay Ñas radiyallahu anhu ñett yëpp romb na leen Baay Ñas mooy saaxibul fayda wilaayatoom boobu ñëpp xam nañ ko amatul werante mooy cheikh al islam waaye tamit Baay Ñas foo xamee ne moom xam na boppam ñi ñi xam nañu bo ko بين سوحنا نتسترت عن دهري بظل جنابه فصرت أرى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت ولا وأين مكاني ما عرفنا مكاني بين يسنا لكة ناتي كرك تبي صلى الله عليه وسلم مجمع يجس سما جامونو سما جامونو جسوما بولا جون بسي سما تور أك سما جامونو خمونكو kon foofu nit ñi réere nañ ko waaye moom xam na boppam waaye fi nga xamante ni moom réeree na fa muradun li hamli sirri min qabli nachati lu jiitu sama nekk lu jiitu nekkam kay foofu kon mbiram réere na ko radiallahu anhu Baay Ñas ne yàlla def ma murabbin ma nekk kuy yar li kulli aarifin mbooleem aarif billahi wa muxlisu waaye tamit man maay ki sellalal ñeel yàlla yaani samay jëf yëpp sellal naa ko ñeel yàlla Baay Ñas ne wa in dahisha saa yu gëlëmee al aqtaabu qutbu yi saa yu qutbu yi gëlëmee yow man ci bés بمشهد كفاية واي بولن يالا فينو أقطابي دانيو أم أي مشاهد يو همانتني لول موي مشاهد الأقطاب كم ني مشاهد الأولياء أمي أك مشاهد الأنبياء نيوم سايو ني غلي تي مشهد بو همانتني خمو ني بان وظيفة لاني ورا جوخ مشهد بيني باي ناس نراوني دانيو جبلو تي من وان قادو إليا دا راوني دنج مي غيس قادو ني جبلو إليا جم تي من واخلصوا مسلل لين يعني بو فكاي دم نان ci man lañuy ñëw ma wax leen mazhar bii nii wala mashhad bii nii ban wazifa lañ ci war a jox radiallahu anhu moo tax mu ni raaytu rasulallahi gis naa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nassa mu signé bind bi anna nii naka man baay safirun lahu man maay man maay ambassadeur am fil kainaati ci kawnu bi ci mbindeef bi yépp mu xallisu ma nekk tamit ku ñu jagleel ba tey maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam def na ne man maay wakiilam ci boole mbir comme ni mu ko waxee woon sànq rek ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam man la may may ak dëggantaan keneen ku dut may yëpp keneen ku dut man yëpp boo demee ci moom danaa la demal ci ibrahima bàyyi nas ne alayhi salaatullahi alayhi na nekk ci moom yenent bi salaatullahi jullik yàlla summa salaamuhu topu topp sëlmalam mu ne wa aalin ak ay nitam ay njabootam واصحاب واصحابين اكاي انندو سمو اي علو موي نيكاوي وتخصصوا ت نينك اي برومي جغلي رضي الله عنه وارضاه عنا به امين